di wax ni ñu ngi kontaan ci laaj boobu ndax waxtoom nag dafa jot. Mhm. wax nga tabaski wax na mbiru lëjum. Mhm. ma rappelé effectivement ni culture ci Sénégal mooy mbéyum euh, dër. Mhm. nga xam ne lëjum moo ci ëpp. ñu koy wax culture maraîchère. culture fruitière mooy fruit yi. waaye aussi floriculture ci la bokk. Mm-hmm. maanaam mbéyum fleur. Mm-hmm. ak li ñuy wax plante ornementale mooy gàncax yu taaru yooyu nga xam ne dañ koy def ci bërëb pour taaral ko. Mm-hmm. kon ñeenti composante yooyu ñooy horticulture fii ci Sénégal muy su secteur boo nga xam ne nag euh, vraiment dañ ci war a njëkk d'abord jaajëfal euh, kilifa gu ñuy wax. monsieur makisal Sall. son excellence. yàlla dogal mu nekk tey njiitum réew mi. lu tax système mhm. dama faral di wax ni sa mbokk journaliste yi dañu faral di ma laaj laaj bu ma neex ba pare xaw maa tiis mhm. bu dee entre deux mille quatorze ak léegi donc deux ans après que président jël réew mi da ngay toog journaliste ne lan mooy horticulture mhm. ma ne laaj bu ma neex la parce que am na lu tax ñu koy laaj mooy jàpp naa ne ñàkkul ay jéego yu ci am ba mu marqué ni ñëpp nit ñi bëgg a gëstu xam loolu. Mhm. mooy lan. Mhm. kon xamuñ ko woon. Mhm. tiis na ma ndax bu du du 2014 lañ waroon commencé. di laaj laaj boobu. ndax horticulture dafa am secteur boo dafa nekk secteur boo xam ne nekk potentialité yi mu am nekkul ci ayu président Macky Sall la ko am. ok dafa juddoog moom naka jekk. noonu la mel. ok productivité rendement. doy de vingt cinq ba trente tonnes ci benn hectare. mun ko def ñaari yoon wala ñetti yoon ci at mi. kooku yemul ak leneen. Mhm. te loolu noonu la ma sa mel. Mhm. njëg yi fa la ëppee compétitivité. Mhm. kon fa la ëppee. bu dee xëy ci benn hectare ñeent ba juróom benn nit mën ci yëg ci benn hectare te bu ñu jaayee ku ne gis boppam loolu du lu bees ci horticulture noonu la ma sa mel mais ci ay président Macky Sall ak PSE ak PRACAS ci lañu suqali sous secteur boobu. ci jàppale ña fay yëngu. avant jàppale bi d' abord ci décider ne dañ koy suqali muy vision politique bi dugal ci ay moyens yu am solo gunge ña cay yëngu ba tey ñu jóge ci dépendance totale ci lu mel ni pomme de terre bi muy jot réew moom président Macky Sall pomme de terre Sénégal yëpp bitim réew la doon jógee. importation bitim réew la doon jógee waaw ok. tey bu dencukaayu doy amoon benn doomu pomme de terre du jógee bitim réew. ndax li ñuy produire sut na romb na suñu soxla. kon dencukaay yi doyul déjà benn benn. donc loolu mais dinaa la wax jéego yi ci am mhm. kon tey bu ñu doon wax souveraineté alimentaire. Mhm. ci soble au plan numérique am na depuis quatre ou cinq ans. ok ci pomme terre am na depuis quatre ou cinq ans. Mhm. mais loolu jéego mënu koo mënu koo paase. kon loolu foofu lay euh, wéeru nag te loolu mooy. Euh, li jëm ci li ñuy wax import substitution maanaam li nga xam ne marché bi moo ko tax a jóg. Mm-hmm. tuddagoo exportation. tey ci mbéy li ñuy exporter li ci ëpp ay fruits la ak ay légumes. Mm-hmm. léegi ñu ngi ci autour de cent vingt mille ton te ñu ngi woon ci cinquante six mille tonnes en deux mille douze kon presque doublé nañ ko. ba mu paase ko. Mm-hmm. ñu ngi yegg ci soixante dix sept milliards yu exportation boobu di dugal ci réew mi par at donc pour pour wax la. ñun y a deux ans bi ñu évalué bi ñu xayma chiffre d'affaires sous secteur horticole ci ñetti filière boole ko ak li ñuy import li ñuy li ñuy dugal ci xaalis bu ñuy exporté bi ñu boolee loolu filière pomme de terre filière euh, oignon mm -hmm. filière carotte mhm. plus exportation yi ñu ngi nekkoon autour de deux cent cinquante deux milliards okay. par at mm le sous secteur boobu potentiellement di dugal. mais loolu lu am solo la kon loolu gis-gis moo fa indi nit ñi mais gunge aussi volonté politique mais aussi loxo ci poos poosu nguur ki kon vraiment ñu féliciter aussi les acteurs de l'horticulture di njàmbarte bi ñu ànd béykatu dër yi dama ne kenn du ñoom béykatu dër yi noonu lañ leen tuddee exact mm-hmm. ndax dañ naan mbéyum dër ñi naan mbéyum noor mm-hmm. mais mbéyum noor jubul ndax dañ koy def it nawet yow soxla nga xam nga ne légume ah. léegi mu ngi gën a am nawet mhm. avant mu nawet jotaan ñu ne légume bi dafa seer parce que légume du am nawet mhm. loolu def naa mu ngi suñu ginnaaw mhm. kon loolu ay ay mandarga la yu may bëggoon indi euh, Malia pour wax ni jéego yooyu moo indi tey dalal xel bi ñu nar a dalal xel Sénégalais yi pour tabaski bii ñu jublu